تراك ولا يد تصل إليك اللهم يا من أزر الجميل أسر حبيقنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين حرمتي يا من أزر الجميل وستر الحبيق ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يأتك سرا ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع كل المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامي كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفي ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بنعم قبل استقائها اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رحمتنا نسألك أن لا تسوي خلحتنا ببلاء دنيا ولا بعذاب النار حرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق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 salaat al ndax loolu la doon na ci lekk yar moom la doon dundee daanaka pratiqué ba ni mu génnee àddina jëf jooju yëpp nag yàlla na ko yàlla nangu yaare bi bu ko defee nag yéen ñi nga xam ne yéen la fi bàyyi ngeen njabootam nit ñi ñëpp bàyyi tam li ñu ko defal ginnaawam rek dañu koy fay bor waaw lépp li ñu ko defal ginnaawam rek dañuy fay bor. dafay nag ci turu waa Caaxo xale dañuy wax ne ñu ngi gërëm waa Ngaparou gépp ndax dégg naa si àlla jiw saaxu si digg dëkk bi ñu bari teewe ko li may wax mu ne ku ñëwoon ci Ngaparou mu ko ñëwoon ci dëkk bi te xam plan laaj plan dëkk bi ñëwoon la ñu jox la ko nga xool nga ne waaw dañoo xam ne El Hadj Elimane Sakho ci dëkk bi la dëkk ñu ne waaye bi la dëkk de ñu ne ani këram si kër yi parce que maa ngi ci plan bi ñooñu la fi këram ne ba fekkee xam nga li nga xam ne fa këram ne ak suñu dëkk bi bindoo Elimane Sakho juddowul nga paro moo ko wax ñu ne xam nga ne kii ni dëkk bi bindoo ak fu këram ne li nga xam ne dëkk kii juddoowul ko par dëkku fi dafi ñëw waaw na waaye nag boo ne dëkk bu toll nii bu mu doon dëkk day ay armeel bu nit ñi dee fa ñu di suul fan la ana armeel yi si si bi ñu ne armeel yaa ngi nii ñëwal la armeel nga xool xool dugg si biir armeel yi xool xool xool na ana armée la Alaaji Limaan Saaxo ña leen nekkul fi ña ne fa mu ne mu ngi ña ne woon ñëwoon la fa mu ne te waxul dëkk bi te xam palaas di nga xam ne kii am na fukk waa dëkk bi tegoon noonu la ko waxee di nga xam ne kii am na fukk waa dëkk bi tegoon kooku nag moo jur ñi ba tey ji ñi kenn amu si kër xam nga kër gi la ñu wax kër Baye Limaan ba fii ñu toog du wax nii in badara kin defi gars yi yëpp kenn amu kër kër Baye Limaan Saaxo la ñu wax kenn du wax kër Badara. kër Baay Ilimaan Daaxu ba fii ni toog wax bon kooku góor góor gu boobu mu amoon ak déggoo googu mu déggoo nag waa dëkk bi ak doyloo gi ko bi doyloo woon ngir xam waaye ngir dëggoom Baay Ilimaan daf ma wax léegi ne ma télévision bii di jël wax ji ak nit ñi xam ne lii bu ëllëgee ñi nga fekkoon sax ma ne la woon na affaire baa ngi nii sëñ Habib Sy balaji alaji assi sa ay numéro yi si ndigal mi lañu ñëwee fii te muy sëriñ ci kër gi waaye muy doom ci kër gi nag sëñ abi moom moom la ba iliman tudde doomam jële ndax nitam la wala fi ne béy wun am nag déem moom mooy pétam ba iliman bu ñu teel a gàmmu tuwaan ba iliman boo ko bëgg a gis demal ay numéro yi sëñ abi moom mu jox ko ay responsabilités yu rëy yu bari ngir ak bok ak dini loolu la ñuy dund nyom ñaar bon bu ñu defal bàyyim bi anniversaire dika jangal kamil kaamil jullit dajé fi mu ebal ñabootam ñu andi li seen télé bi télé bi la ci yalla barka way la ci yalla barka jere ngeen jëf. nun day képp ku mëna doon nga dëkk nga paru gi juddoo nga par yaroo fi wala nga dëkk fi xam kuy bàyyi alaaj tam si saaxu ma ne amal nga ko njukkal amal nga ka njukkal waaye amal nga koy tam ak cant moom yàlla baaxee naka yàlla mayoon naka muy boroom xel yàlla mayoon naka muy borom wërsëg yàlla mayoon naka muy boroom jàmm nit ku bari woon jàmmal ak salaam man xam naa si dara ndax leelaa ji mbay wax léegi suma bàyyi alaaji Tidiane Dieng Moussa Dieng mi ko jur magi ba alaaji Tamsir mi mu toppa si moom la ko suma maam Ilimaan Sakho tudde woon kon bu doon dund mooy magi ba ay Tamsir loolu it alaaji Tamsir dund na ko ak man ma suma kaa dul papa bu mu dajee mu ne ma suma doom bu waxul papa mu dóor ma ne ma maay sa papa loolu laa dund ak moom waaye man suma bàyyi Tidiane moom moo alaaji Mbay alaaji mbay sama baay Tijaan moom wax ne bi maam Moussa Dieng di làqu booba dix la am dix mu ne àllu bam ginnaaw yàlla ak yonente ba maam ilimaan saaxo ka mottali moo ko doon jàngal fii mu ne maam ilimaan saaxo bariwulum daan jàngale àllarba waaye saa wu ñëwaan mu ne Tijaan dafa bugg a xam-xam jàngal ko loolu suma bàyyi ma ko kon dëggante la boo xam ne maam Ilimane Sakho ni mu bare ay bokk kaar ak ñi mu bokkal bu jëlee maam mu Dieng tudde ka doom di diile ak wóllëree tax kon loola la ñuy wéyal ba léegi waaye ñu di leen seedeel ne mbooleem laa wax ku xam baay Badara ah, baay Tamsir ku mu jur ak ku mu jurul ñëpp la bokk yemale taxawaayam si diine taxawaayam si wërsëgam si dimbalee ñëpp a si yem alaaji Ibrahima sax eh, fay mii gaañ moo wax si gémmiñam ne ma bàyyi alaaji Tamsir a ka wax ne li des sama dund des sa dund yow doon tele dañu dajee si mbedd mi nii rek jox am amel naa la ñaari junni wallaahi noonu la loolu naka defee ba mu ba ni mu demee uyu ji boromam amul benn loolu ibsa kaama ka wax sëñ Ibrahima te amul Ibrahima nee na ma bam ka ka waxee ba mu làqoo amul fenn fu ñu mas daje te joxu ko 10 ba pare teg si nag lu mu loolu tax ko warlu woon waaye door door kaa teg door li mu kaa dimbali loolu Ibrahima ma ko bu amaan nii nga paru bu ñëwee albaay mbay ngoom mii si xelam mu rafet ak am mbaaxam ku bàyyi alaaji tamsir war dimbali mbay ngoom wax na ko moo ko gën a xam nga paru moo ko daan wax diw wax diw waaye ndax kaa jox xaalis téeméeri junni la daan jox ka mat ib sekka jox ma jëmati ta fii soman ngëriñ njoroox te ilimaan bu fi nekk kenn ku ci nekk man la Ibrahima yónni ma jël xaalis jox la ne la sa koori bàyyi tamsiir loolu nag dañoo wax ne làmbi nittali maa ko fekkee ka ub maa ko fekkee nag dund ko ak baay ak ak sëñ Ibrahima ak bàyyi tamsiir bab Alaaji Ibrahima Sakho gën a yaatal tabarkàlla rafetal du góor du jigéen képp ku dëkk ci nga ngapparu joxoon nga Pape Alaaji Ibrahima Sakho cër mu jox la cër lépp lu mu gis loo xam du noonu mu dindi loolu yàlla def bàyyi amat ñëw dund ak nit ñi noonu yaatal Alaaji Badara noonu werante sax bu amaan dañ naan ba Alaaji Badara ñëw bu ñëwee ñu ne Alaaji Badara kii da nàngam kii ne nàngam mu leeral loola ba mu leer ndañ amu si rëy amu si lu gën tuuti tuuti bu laajee alaaji badara lu mu xamul mu leeralal ko loolu moroom mi ñëpp la woon si oyofaay bi yal na àjjana doon seen kër barke alaaji tamsir ñëw na gën a matale boole njaboot geeg waa dëkk beeg gune yu ndaw yi sax alaaji tamsir ku si wax moom sax mu déglu yaatal lépp yàlla dogal nag mu génne àdduna bopp yu bari xaw a ubb di nga ne Alaaji ma meloon ak ni lu affaire bi bettee ñu am ak jaaxle moo waa nga poru fu ñu jëm ñu di ko waxtaane ma ne ay Alaaji Tamsir yu bare ñoo fi nekk yàlla xam na ko bu taxawaay amee rek lépp day matal yàlla defit gune yaa ngi ci yoon woowu ni mbay ngoom wax nag ci dëggante Sëriñ Ibrahima ak alaaji Tafsir loolu sax dafa yéeme kenn buggu see def dara lu yëngatu te neexul sa moroom dañu bàyyinte woon xel dindi dunda loolu kon nag loolu njaboot gi yëpp gis na yëkk njabootu alaaji Ibrahima gis na yëkk njabootu Baay tam gis nañu loolu ñu ngi ñaan itam noonu ngeen doon dunde ni ñu tërale ngeen dunde noonu ba ilaa yow mi diini ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp man nag Alaji bu saxu xawma ma turandoom bu ma mag de musuma gis ku ñew ñu ne ki ibu saxu lañu ko mu mag ma ñi ma xam yëpp ma leen mag yàlla dogal sama papa jox ma ko may jàng sama papa nag mag la man la am si doom bu góor mu ñeewante ko ne ma dama lay ñaanal nga ñibbi sa papa bugg na nga jàng mais ne nit ñi mbéy la ñuy dunde te sa papa moom rek mooy dem tool bu demul tool kenn du fa ne mu ñaanal ma ma ñibbisi nekk ak sama pàpp ah innaa fatax naa waaye it xam naa lu ma jullee tabarkàlla mu def si man itam yar lu ma war a bañ kenn lu ma war a bañ kenn mënuma kasant sant du mag du ndaw loo xam ne lii du waruma kaa def ku ma ko ma bañ yàlla seede na loolu ma la wax Pape Alaaji Jibu ni muy yore nii sax dafa doy waar parce que da lay fexe nga am di dignité xam li nga war a nangu xam li nga war a bañ bu bañ jotee nga bañ bu nangu jotee nga nangu xam nga euh, bañ loo war a nangu baaxul ñàkk xàmmee kay waral nangu loo war a bañ itam baaxul ñàkk xàmmee kay waral mais loolu lay def si yow day def si yow loo war a bañ bu ëgsee rek nga bañ loo war a nangu bu ëgsee rek nga nangu li may doon doon bu ne loolu jëlewaale naa ko mu ñaanal ma nag ma njëbbise ñaan gi wax dëggu yàlla barke am na si parce que lu may yëngu lu mu néew néew yàlla dina fi defal sutur sama papa benn kan bi ma ka bàyyil may joxe dépense boobu 49 euh, anaka 50 1959 ma ne góor gi bàyyil may joxe dépense mu ne man nga ko ma ne waaw bu fekkee ne nu ngi dem tool sa kër a ngoog mais bu bu bu tool jeexee ma yor kër gi buma démé demee géej ñëw dépense bi 200 francs bo joxé 200 francs ciép bi day xonq ci te ngay naro ay 600000 francs ma yor kër gi. barakallaahu auzu billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خمنا صخ لو ألف وخون بامبي دم أمول بخيرك rek منك أي باتو ay يتنك ñu ngi nuyu sunu baay yi ñu fi fekk daanaka sunuy kilifa rekk lañ fi fekk Baye Talla Diom ñu ngi laa ziyaara di la wàcce sa wàccuwaay Baye Ibou Ndoye tabarkalla macha allah ñi ngi bëgg bu baax di kontaan kàddu yu rafet na yàlla bàyyi leen fi sunu kanam di nuyu sunu baay bi nga xam ne wax naa ko bërki démb ca dakaar ne ko ñun yaay sunu bay tafsir muy pambay ndax bi ñuy juddu di gimmi bi ñuy gis baytam lañ ko gis ba sunu yoonu yàlla kon mooy bay tafsir di mag mu généreux mag mu baax barki démb la ñëw dakaar donte ñaari at tegu fa tànkam waaye ba mu demee daanaka jibi sa dafa jooy ne Ousmane Pambay daal Pambay Pambay ñaanal ko yàlla yàlla bàyyiwaat ko fi sunu kan bu yàgg yàgg yàgg di nuyu Belhadji Ahmad Sakho mu ngi nee toog di sama kilifa mu ngi dend ak Belhadji Ablaye Thiandoum maam Ilimane mi ngi nële ñang ak sina sànq ak kilifa projet yëpp ba dara Sakho moom tey mun naa wax ne bàyyi la ci ñun ndax itam moo fi tooga toogaanu bàyyi kon mooy bàyyi ñu koy xoolee bëtu baay bëgg ay rakkam wàccee boppam bu ñu ñëpp miin ko nampatal ñu boppam loolu nag mi ngi bëgg yàgg ku ci ne teg nga ne la mu am ci yow amoo ko ci amoo ko ci keneen loolu la yàlla dogal ku baax la mag mu baax la bal xaaji Papa Mbeng Saaxo ñu ngi koy ziar di ko wàcce wàcc waayam di sunu référence ndax ñu ñi nga xam ne ay ëmma lañu te bokk ci njabootu kër maam man Saaxu yéen yéenay sunu niitukaay yi ñuy xoole da ngeen mate ko sëkk nag bal xaaji tafsir sama papa sama sama daanaka ci ay loxoom la ñu yaroo ndax bu ñu mosaan a ñëw nga pour les années quatre-vingt-trois quatre-vingt-quatre nekk ay tout tànk boobu bàyyi itam daan na tukki tukki yu yàgg ci àll bi waaye ci ay loxoom lañu ñu nekkoon Pape Tafsir mii moo ñu daan tarbiya moo ñu daan yóbbu tool boo ñu daan teg ci yoon dañuy jàngal ñemewuñ ko woon sax di xool moom loolu yàgg na tabarkàlla macha allah euh, xam naa Baye Modou Dieng yow mi daane léegi kàddu yi du gudd ndax Alhaaji Abdou Aziz Mbeng mii laa bëgg a jox këf gi di doom kaat fa tabarakallahu ci yaay jafe saaxo ci maam alxaaj ibrahima saaxo di borom xam-xam pambay wax na ko sànq wal wallaay wallaay wallaay pap tam la pambay ngom laa daan dégg mu naan alxaaj ibrahima saaxo ne bàyyi tafsir ma loon ci moom pap tam mii loolu la ma jox ci baytam ñun bu ñu bëggaan sax sunu pap kontaan ci moom la ñuy jaar pour mu bég ndax boo xamee ne def nga moom teraanga rek lu mu mën a doon rek nga xam ne baytam bég na daan jaar ci moom gis sunu bay bég ci Pape Tafsir mii toog dama doon daaneel ci moom Pambay xaj bara dafa ne balaa ma jox sama sëriñ bii ndax maama may sama sëriñu baay mooy ba Abdou Aziz Mbeng di ba yaay jafe saaxu yaay ma ngi ci Richard Toll bokk ak sëriñ baabakar Saaxu ak alaaji Xaasim mii ak yaay soodo ndey ak baay mu mat nak limu doon am ñu fi jotté xew bala ma kaa jox këf ci man de waxtaanu ndax awma ci awma awma fi tay place waxtan ndax samay bayk samay kilifa fi ne way dama koy présenter rek wala bok mu ubbil ko barki Demba ca Faas Pambay ya ros ñay def na fa xew-xew bu reuy dal na fa ay xar yu bari togg na fa ay ñam yu bari la fa tuuri ci mbooloo kenn xamu ni mu toll ñun nag weesuñ lu dul nekk njaboot ak taalibe te moom la ñuy ñaan doon ko sunu baay ci dundam la jox ñun Serigne pap iliman Sakho ne ko xale yi seeni mbër nañ la ciy jiital Serigne Mouhamadou Habib Sakho yàlla na yàlla bàyyi ko fi sunu kanam mooy sunu kilifa ñun ñëpp sëriñ Babacar Sakho mu baax mii ak Baye Laaji Xaasim ak seeni rakk waaye nag Baye Tafsir moo nañoon Pape Elimane Sakho ngi sëriñ Pape Ousmane yaag say rakk ak Baye Jibi bii di seen kilifa joxe naa leen sëñ Pape Elimane lu ngeen di def jiital leen ko ci ma lay seede ngom xew-xew barki démb bii huit fa la ko fekk ci suba moom sëñ Pape Elimane moo dirige kaamil bi moo taawu wasifa ba mu àgg ñu fit daawu jàng xatmu bi ba ñu paree it am na ay kilifa yu bëri yu fa daje ñoom Pape Mansour Mbaye ñi fa la ñu yendu waaye fa la nekk bu ñu julli timis mu soog a ñibbi këram loolu foog ma seede la ko jël nag xaalisam ci poosam ku ñëw moo la yeewi moom moom sëñ Pape Ilimane ñoom oustaz Mbaye Daara Dia keroog ñëpp fa la ñu yendu ñun ñëpp ndeysaan sëriñ Haadi ñoom Baye Jim ak ñëpp. loolu xew na bërki démb ca dakaar am na émission bi ñu fi def démb asfiyahi daaw man alxaaji seega saaxu ñoo demoon ak waa Tiwaawandi ñoo ko way ren ñu ne comme ñu ñoo demoon daaw nañu soppi ren façon man sama bopp bay jibi na ma loo loo ci gis maa tànn bay Abdou Aziz Mbeng mi mu mu sawar ca lool taxaw ca lool indi ay waykatam jël otom ay sansam te samedi lañ naroon enregistré ñu dem télé bi am panne ñu ne dimanche dimanche lañu mën di enregistré dem émission bi nañ ko teg tey ci midi Asfiyahi moo ko bay Ahmad Sakho mii ndeysaan nga xam ne tey mooy sunu sëriñ ñëpp kuy njabootu baytam ñoom ñaari dem dem ba ci télé ba ak waykat yi firi fay xilaas euh, wax fa ci mag ñu baax ña wax fa jaar jaaru bay taf si loolu xew na démb nañ ko teg tey ci télé bi yooyu laa ne ma dama koy présenté oustaz Dieye mii kar ba tabarakallah Pam Mbaye xanaa nga dolli ko ñaanal ak boroom xam-xam yu tedd yu fi ne ku baax la bàyyi tam ba muy dem daf ma bàyyi woon ak moom bay tafsir kaamil lu ma sana am Dakar ñooy àndandoo ñun ñaar ñooy dem ca kaamil ba wétti lu góor gi su paree xat bi moo ko daan jàng lépp lu góor gi daan bindulu yaa ma ko gën a xam moo ko daan bind am na discrétion amna xam-xam doomu soxna la ba pare nak la bir démb ci min wi la jóge mbour ñëw samedi xew-xewu ros bi barki démb suñu xew-xew bi moko yor min wi la aksi tay fajar man mi bi may aksi di garé ci buntu kër ga fas jittona ma fa ñaari waxtu mala koy sédé dëkk nit ko bax la ko fa bayit bay tafsir bàyyi won xam nako soppi wu ci dara siis ñi ngi la ziar di la jale wat sunu gor gu sunu bay ba mbeng ba Ibrahim kon damay jox micro bi euh, Baye Hadj Abdou Aziz mu waxal Baye Jibril Sakho moom la yónni man dama ko gunge moom la yónni euh, ci mbooloo mi su ko defee mu sànni ci ay kaddu oustaz mi ngi toog xam ne incha allahu taala mu am li muy tëjee ci baatu gàttu yi la ñuy wax ne ay baatu cant ki ngërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu